ci ngeen def euh, kontaan ci euh, teew fii ci waxtu wi ñu waxtaanee actualité ni ñu koy defee saa su nekk di leen nuyu euh, di leen di ziar continuer rek ci tempo bi nga xamante moom la ñu nekk ay bés a ngi nii ñu ci wax ba léegi mu xam nag ci yeneen i plateforme yi nga xamante ne ni am na ci groupe Futur Média waaye surtout lépp li nga xamante ne def nañ ko ci ay émission ngir gën a fexe rek nit yi xam bu baax a baax li nga xamante ne ni moo xew jamono ji ci xeex bi nga xamante ne nii réew maa ngi koy def jëmee ci coronavirus coronavirus moo tax ci ñaareelu pàcc bi daañu dalal ki nga xamante ne nii moo di docteur Thierno Birahim Aw nekk directeur général bu CETUD nekk nag li nga xamante ne euh, ñu waxtaane ko rek ci wàllu transport bi bu ko defee ñu dellusiwaat ci mesures yi nga xamante ne euh, ministre Oumar Youm fësaloon na ko fan yi ñu weesu ngir xool ndax jëfe nañ ko sur le terrain bu fi ñëwee ñu gën a yaatal gannaaw vingt bi lay doon ñu ñëwit ci xibaar yi ci wolof ak rédaction bi pàcc bu ñu dalal maire bi di Samba Bathily euh, Samba Bathily Diallo ñu lay dalal jàmm ci suñu plateau. Hmm, maa ngi leen di fay si jàmm di sant euh, groupe future Média bu baax. si mhm. invitation bi di. ñaan yàlla mu jële fi feebar bi si lu gën a gaaw amiin amiin yaa rabbi monsieur le maire euh, feebar bi bu mu dugg see ba léegi mën naa ne ci maire yi ñu gis ñi ciy wax gën nañ la ci ràññee waaw ndax lu waral loolu ñoo njëkk a am kaa ci communes yi ñu nemmeeku wala bokk da nga jiital li nga xamante ne rek euh, mooy anticipation pour fexe nit ñi gën leen alerter. waaw njëkkuñu am kaa ci Sénégal ah bokk nañ sax ñi ci xaw ñuy mujjee am ay cas. Hmm. waaye nag boo jiitee gox jàngoro bu mel ni am ci àdduna bi danga war a anticiper moo tax depuis que. mu am benn cas ci Sénégal rek ñun togguñu noppaluwuñu ñu jëkke woon ci phase de sensibilisation bi mooy xamal doom aadama yi ne nii ah nii ah nii la ñu war a fàggandikoo defe naa ne phase boobu moom def nañ ci liñ ci war a def yëpp ba tey ñu nekk ci beneen phase boo xamante ne mooy phase boo xamante ne c'est vraiment de lutter contre la maladie de faire les gestes barrières pour que feebar bi du law si. bu ñu doon defal le point tey situation Wakaam lan la. waaw Wakaam am na fanweeri cas ak ñaar. Mhm. fanweeri kaa ak ñaar yàlla mu ngi dimbali amul kaa communautaire na benn kaa bu ñu xawoon jaaxal rek mais mënoo ko classé communautaire mais si loolu am nañ ci fukk ak juróom-benn ba démb yoo xam ne wér nañ mu des fukk ak juróom benn xam naa ne filees ci kanam médecin chef de district bi dina ma joxaat la situation. bu ma joxee la situation ñu ñu dindi ko ci li nga xamante ne mooy fukk ak juróom benn yi desoon may xam ne aussi que amaatuñu yeneen lu mat euh, une semaine presque mu ngi nii amaataguñu beneen cas ñu ngi ci sant yàlla. mooy wane ni mesures yi nga euh, teg ci ci commune bi moo indi lu mel noonu wala waa yaakaar nañ ko ndax bi feebar bi mu amee ñu am ci ay kaa ñu am kaa yoo xam ne macha allah. yàlla na yem foofu cas yi daf dafa daf ma tiitaloon man en tant que premier magistrat de la commune ñu ne la fanweer ak ñaari kaa loolu dangay ngay tiit. Hmm. moo tax ñu ñu ñu accélérer lépp bi ñu ko amee rek dañ tëj marché. ndax foofu la jógee moo tax. noo jógewul ci marché bi ñun suñu kaa ay cas importé yu yu yu wàll ñeneen la xam nga dañ njëkk am juróom-ñeenti cas. Hmm. juróom-ñeenti cas yi ñoo xamante ne ñu ngi dëkk ci ay cité résidentielle waaye seen dem ak dikk bariwul dañuy jóge voyage am ko donc ñooñu wàlluñu sax mais beneen bi bii nga xam ne moo indi lépp mooy benn nit la rek bu jóge voyage xamul ne dafa am feebar bi mu ñëw mu wàlla juróom-ñaar ci biir këram juróom-ñaar yooyu wàlla fukk ak benn hmm. te si yooyu dafa am kaa bu xawoon jike marché Wakaam ba mu am sax ñoo xam ne dañ leen jëloon yóbbu leen isolement ñun amoon nañ lu xaw mat téeméeri nit yu ñu yóbbu isolement mooy ñi nga xam ne dañ ko am seen i contact loolu moo tax bi juróom moom mu wàll juróom-ñaar ci këram juróom-ñaar yooyu wàll fukk ak benn bi ñuy dañuy yóbbu isolement mu amaat ci ñaar ñoo xam ne dañ amaat muy fanweer ak benn ñu amaat koo xam ne aussi dañ ko testé woon mais résultat bi yéex a ñëw ñu testé ko le 27 mais résultat bi ñëw le le le le 6 bi résultat bi ñëw la 6 fekk ñu ne dañ ko déclaré positif. ki ñi nekkoon isolement la bokk. moom non dafa amoon signe yi ñu ñëw ñu testé ko. bi ñu ko ñu ne ko say résultat dina ñëw bàyyi ko këram wax ko mu isolé wu mais moom. le 27 ba le 6 le résultat am doogoon na ñëw. Mhm. bi mu ñëwee mu nekk résultat yu positif. bi ñu dawee ñëw si moom ñu yóbbuwaat ko testé ko fekk mu wér ñu testé aussi ki muy fanaandool kooku amul ñu testé entourage directam ñooñu aussi amuñu ñu jàpp ne kon kooku kaa boo xam ne def na isolement am bu baax ba nga xam ne jotul walla ak keneen. isolement boobu ci biir kër yi ngeen leen di bàyyi wala dafa am bërëb bu ngeen jagleel euh, wala bu kilifa yi jagleel ñu yóbbu leen foofu. non xam nga ni muy demee tant que amul un cas. cas boobu du ñu mën a jël ay contact am isolé leen parce que état mu ngi def liggéey bu am solo foofu dafay jaadu nag ñun ñi nga xam ne am nañ kaay yi ñun mun nañ ci wax. Hmm. dañuy sant bu baax la ministre de la santé. ah équipe am ndax district ouest bi wax fa dëgg yàlla ñu ngi def seen liggéey comme cela se doit bi cas yooyu amee jël nañ matuwaay yëpp isole ñëpp. ñenn ñi sax amoon na ay réticence waxtaan ak ñoom jël ñëpp état yóbbu leen yóbbu leen ci ay hôtel hôtel yu baax ndax bi ñu dellu see wax nañ ma. condition yu baax lañ nekkoon. Mm. foofu lañ doon doon testé mais bàyyiwuñu la tànk fukki fan ñeent yi matul sa fukki fanax juróom bi. lañ leen di doog a bàyyi ñoom ñëpp ñu ñibbi si doonte di bëri woon nañ mais jël nañ leen yóbbu leen isole leen. def li ci war ba nga xam ne dellu nañ te indiwuñu waale feebar bi. ci wàllu euh, mesures yi nga xamante ne teg na ko ni may ñëwaat ci ci marché yi parce que sànq yaa ngi ko doon wax am na dispositif boo xamante ne nii euh, gis nañ ko si ñaari marché yi nga xamante ne ñoo ñoo nekk ci wakaam tey faral di di bëri nit loolu bëgg naa nga dellusiwaat ci ci ci mesures yooyu. waa xam nga tey wakaam quartier booy dugg foo dugg si wakaam def nañ fa dispositif de lavage de main mooy booy dugg di nga raxas say loxo. da leen a jox mouchoir nga fomp nga dem ndax li raxasu bi li si war yëpp neen ndax technicien nee nañu raxasu bi moo gën lépp donc nañ fexe nga raxasu bu set jàngalaa leen nan ngay raxasoo mais loolu munuñu imposer nit bi ne force da ngay raxasu mais dina am ñu ñëw taxaw booy romb ñu ne la kaay fii nga raxasu mais si marché yi nag c'est une obligation marché yi balaa ngay dugg balaa ngaa dugg moom da ngay raxasu wala doo dugg si marché bi donc dañ encercler marché bi teg fa suñu agent nga xamante ni ku laa dugg da nga raxas say loxo mais yemuñu si loolu dañu imposer képp koo xam ne commerçant nga da ngay def da ngay takk masque. Mhm. da ngay takk masque boo wàccee nga kii mais yemuñu si loolu aussi wakaam marché yi dimanche dootuñu waaw ba pare 16h marché yëpp dañuy tëj. noonu lañu def parce que marché moo ëpp affluence. mais suivi le terrain est-ce dinañ ko jëfee jaaykat yooyu noonu masque bi nga wax ñu koy sol. boo duggee marché wakaam tey ku takkul masque dañu dañu lay tëj jour boobu doo jaay. suñu agent yi ñu ngi surculer ku takkul masque rek dañ lay tëj. Mhm. jour boobu sa jour sanction la doo jaay moo tax commerçant yi dañ ci am nga rek ku nekk ak sa teraanga fi mu nekk da koy sàmm moo tax commerçant yi vraiment c'est le moment de les remercier aussi ndax tëj nañ fi marché Ouakam pendant une semaine xam naa ne metti woon na si ñoom mais dañu ànd ak ñun ñu lay expliquer am na wax mënoo ko wax. ndax boo doonee kilifa munoo joxe yëpp information mais biñ leen expliquer junju leen xam nañ ne loolu ñoom lañ koy defal ñu nangu ñu tëj bi. nettoyer aussi marché tous les marchés de Ouakam ont été nettoyés nettoyé nañ leen désinfecté nañ leen comme dëkk bi yëpp aussi désinfecté nañ ko là aussi je remercie le major Alla Ngom parce que def na le nécessaire ci liggéey bi nee nga sànq euh, semaine a ngi nii déclaré wuñu cas bu bees biir Wakaam waaye gis nañ ne da nga fas yéene renforcer mesures yi euh, ba ñu liir euh, ci ci presse bi ne également da nga fas yéene fexe port du masque nekk loo xamante ne dañ koy gën a yaatal ci ci ci Wakaam naka nga fas yéene def ba loolu noonu daal di nekk une réalité sur le terrain. waaw port de masque bi xam nga wax naa la léegi ma ne la marché yi. Mm. ñun ñoo jox commercant yi ay masques ndax dañu jël ay tailleur Ah, ñu jàngal ñu technique yi yi ñuy defee masque yi former tailleur yi tailleur yi ñu ngi ñu ngi ñaw. naka ngeen leen tànn tailleur yooyu. aussi ay yoo xam ne ñoo ñëw spontanément bi ma waxee tailleur yi kaay leen jàppale ñu ci liggéey bi tailleur yi ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu jàngal leen technique yi donc ba fi may waxee yow ñoom ñu ngi ci liggéey. continuer donc suñu objectif mooy am trois 300000 masques suñ ko amee dinañ mën a jox wakaamaa bu nekk ñetti masques. suñ la joxee comme les masques sont lavables di nga mën au moins journée bi nga utiliser say masque boo laata da nga defaraat say masque pour que si ëllëg sa ñëw loolu nag bu ñu ko xasee ba distribuer port de masque wakaam obligatoire la yow boo fa dëkkowul sax boo booy dugg wakaam boo amul masque day leew doo dugg mhm. parce que tamit mënuñu aar ba pare di bàyyi jàngoro di jógewaat feneen di fa ñëw moo tax ñu ngi ci kii trois cent 300000 masques nag du lu yomb am nañ ay donateurs aussi am na ñu bëri ba léegi loolu moo tax ma xaw a tardé am na ñu ñëw léegi indil ñu tey ji recevoir nañ à peu près lu mat 3000 masques donc 3000 masques ah presque confectionné gum nañu en dehors de li ñu jox waa marché yi lu mat 50 000 masques nous pensons que d'ici une semaine dina fekk euh, ñun pare nañ pour suñu 3000 alors dañuy ñëwaat euh, ci euh, li nga xamante ne mooy mesure boobu noonu parce que tey kilifa yi waxaguñ ne le port du masque dafa dafa dafa obligatoire ci réew mi en tout cas les professionnels de santé dañ koy digle ne moo gën pour moytu su ko nit yi mënee def yow nga ne da nga fas yéene jël dogal boobu noonu fas yéene ko def bu masque yi pare ci lan nga ko wékk tout ce qui n'est pas interdit est permis nous sommes en guerre hein commune bu nekk maire bi fa nekk dafa jël ay responsabilité parce que askan bi yaa leen di administré seen koom yow yaa ko yor. la loi dit que la collectivité locale s'administre librement avec une autonomie de gestion et une autonomie financière mu dolli si mu ne la toute délibération à force de loi ah, dans sa localité <laughs> waaw xam nga da yoon dafa wax ne suñu kuréel yi dañ leen yor si su si si si si yoon waaye si ni ñu ko bëggee ñu ne suñu koom si ni ñu ko bëggee it. Hmm. la koy lañu koy defee. ah si ni mu jaar yoon ndax loi bi tamit daf ko encadré. moo tax mu wax la ne bu boo defee délibération si sa commune sa délibération boobu bu ko sous-préfet approuvé rek à force de loi kon moo loi bi ñu voté assemblée nationale. ñoo yem nag ci gox boobu ñu ko voté. Mhm. délibération bi ba pare yoon moo wax ne les les les les les décisions du maire sont exécutoires mooy bu maire jëlee décision décision boobu dañ koy appliquer bu fekkente ne dafa am d'accord ñu ci par exemple man max sous-préfet nga xamante ne mooy le représentant de l'État parce que su ma defee arrêté dama koy yónnee. mais cela n'empêche damay executer sama arrêté su ko approuvé mooy amul contentieux. su ko approuvé wul dafa war a jël sama arrêté mu jël ko yóbbu ko cour suprême cassation pour que bu fekkente ne moom moo am yoon cour de euh, cour suprême cassé sama décision nga xamante ne ma defaraat décision bi ba mu conforme wala mm. mais amul kenn ku mën a ñëw arrêté sama sama arrêté bi nga xam ne moom laa jël ah fas yéene woo si deltu gannaaw ci ci logique bi nga xamante ne moom nga nekk nee nga sànq commerçant yi euh, ku ci jëfewul port masque bi dinañ ne sa commerce dañ koy dañ koy tëj pour encore en fait forcer leen à la ñu ñu ñu def li nga xam ne moom nga wax waaye nit ki nga xamante ne mu ngi génn këram dox soxlaa nekk ci leen amul lu muy jaay kooku noonu nga bëgg mu takk takk masque bi lan mooy doon tey li nga xamante ne mun nga ko teg euh, ci ci kawam ne ko ah lii boo ko deful lii moo la ciy fekk. xam nga bi jàngoro ji di ñu yëkk rek ñun li ñu njëkk def mooy ma jël arrêté interdire toute forme de vente sur la voie publique. Mm. kon ku jaayati teguloo si yoon. man maa jiite dem dindi jaayukaay yëpp fu gargot ne ci mbedd mi dindi naa ko fu taabul ne ci mbedd mi dindi naa ko du ñàkk nag ñoo xam ne dañuy ñëw di jaay bu ñu gisee suñu agent yi ñu daw loolu it ku ñu fekk ci mbedd mi même bu du port de masque bi ngay jaay ci mbedd mi dañuy jël sa njaay yóbbu ko fourrière donc loolu moom jotewul dara ak port de masque bi ki nekk dans l'illégalité il est dans l'illégalité parce que nag jàngoro mënul am ñu bàyyi nit yi ñuy ñuy ñuy def ay attroupement sama arrêté boobu je pense que la décision du gouvernement gouverneur gën na ko conforter daf ne toutes les ventes non essentielles si dañ leen war a arrêté mooy fekk na ñun ces ventes non essentielles jël naa arrêté ñu ngi koy appliqué peut-être que mënuloo derrière chaque personne nga teg fa koo xam ne moo koy contrôler mais dañuy def ay ronde ku ñu fekk foofu ngay jaay te waroo jaay amul sax maslaa dañuy jël sa njaay teg ko ba nga xamante ne jàngoro bi joge na fi au moins bu ñuy dellu. est-ce loolu amul amul xaj ak seen monsieur mais damay dellusiwaat ci sama question bu fekkee loolu jaaykat yi rek la. Mhm. ki nga xamante ne jaayul. Mhm. Ah, nga xamante ne këram la génn di mhm. doxi soxlaam. te takkul masque yi moo xam muy yéeg oto moo xam muy defi leneen te jëndiwul jaayul wala amul commerce bu mu teg di ko jëfee kooku naka ngay def ba tey masque boobu nga ne dañ ko war a sol ci biir gox bi ngir aar ñëpp mu mën ko def. déggoo ma ne ñu ngi defar 300000 masques. ma ne wakaamaa su ma jëlee. 100 ma masque te soluma ko nag. doo génn boo génn ñu ne delluwaat si ci biir parce que yow sa liberté du ñëw indil nit ñi jàngoro. Hmm. loolu nous sommes fermes là-dessus on a des équipes on a des renforts on a des volontaires on a des centaines de jeunes yoo xamante ni ils vont nous accompagner on va si dañuy commune bi yëpp la ñu wër loolu te yoon moo ñu ko may ndax maa jël arrêté. Hmm. yoon moo ñu ko may ku laa dox si dëkk bi da ngay yor masque ku joge feneen di ñëw wakaam nga xam ne kat wakaam ñun masque la ñu takk boo nekkee nag sa biir biir kër la. mais mbedd mi du ñu bàyyi nit yi. parce que confiné wuñu comme confiné wuñu tamit takk masque bi c'est démontré que dina wàññi jàngoro bi. Mm. xam nga li ñu rek ñun ñoo ko xam bu ñu waxee 32 cas on naa été stigmatisé. waaw et cetera mais man dañoo wax bul wax kaa yi naa dañu dama ne dama koy wax pour que man sama population ñoo xam ne lii mooy dëgg bi parce qu'ils ont droit à l'information et à la information boo ñëwee nga am de cas waxuloo ko nit yi cas nekk ci booru marché bi waxuloo ko nit yi nit y du ñu fagaru. Mm-hmm. mais gis nga bi ñu ko waxee. ñi ñi mu neex ñu wax kaa ñi mu neexul ñu wax ko yëpp gën nañu fagaru ku nekk xam nga ne kaa yi mu ngi fii si biir Wakaam yàlla mu ngi ñuy suturaal ñi ñu nit ñu def si liñ ci war a def waaw dinañ sonn coono boobu yëpp ñu stigmatiser ñu am na ñoo xam ne maa intervenir auprès de leurs employeurs ñoo xam ne dem nañ di liggéey ji ñu ne leen noonu non non nee nañ seen kër dañ leen isolé et cetera maay obligé di intervenir di oo seen yi wax leen ne ñii kaa bi jigew leen ñii et cetera et cetera mm. donc ñun ñoo xam li ñu dund damay ni yàlla lii jeex ba nga xamante ni kenn dootuñu stigmatisé ma mën a taxawaat ne wakaam léegi nous sommes à zéro cas nous à zéro loolu mooy suñu xeex fi ñu toll du ñu nag nangu nit jóge fële ñëw amuñu droit ne kenn du dugg biir wakaam comme keneen amul droit ne kenn du kii mais nag kuy dugg si ñun suñu bu boobaa dinañ ko wax ku fii ñëw na nga fagaru nga takk sa masque alors tey am na si ñoo xamante ne ci ay observateur wala ñenn ñi borom xam di xalaatal ne euh, war nañu mën euh, ci bërëb yi nga xamante ne ñoo ëpp cas ñu ñu ñu ñu confiné leen maanaam nekk confinement partiel ndax loolu ànd nga ci. man bu doon sama sago région de Dakar bi yëpp la ñuy confiné tey ñu ngi jëm ci ndimbal yi. Hmm. donc pour 15 jours xam nga techniciens yi man du ma technicien ñoo wax ne fukki fan ak ñeent ku ko am même buñ la testé wul day feeñ. Hmm. te état amul. doole mu testé ñëpp te am nañ ay cas communautaire waa suñu bàyyi cas communautaire yooyu kii laal kii kii laal ki kii laal kii ba mu def benn buum est-ce que état dina ko mën a ti maîtriser non je pense pas amuñu possibilité teste ñëpp waaw nañ jël ñëpp ñu ne bu kenn génn sa kër. Mm-hmm. pendant 15 jours au moins ku am feebar bi di nga ko développé foofu lay gën a yomb ñu fekk ñi am feebar bi ñëpp seen biir kër yi jël leen yóbbu leen isolement. dina fekk ñi nga xamante ne tamit yóbbu nañ leen isolement te amuñu feebar bi ñoo ñu dellu si seen biir kër yi au moins dinañ mën a xam ne lii mooy cas réel yi mooy ñi nga xamante ne ñooy cas contact yi ñu mën a suivre faj ñi nga xam ne développé nañu feebar bi ñi nga xamante ne. Euh, ay contact lañ ñu def suivi bi ku ko si am ñu kii la au moins fexe nag tëjaat Dakar ba kenn du fi mën dugg kenn du fi mën a génn suñu paree day mel ni cas importé yi mm-hmm. bi ñu tëjee cas importé xam nga dañu mayeen fukki fan ak ñeent tëj fa frontière yi fukki fan ak ñeent yi bi mu passé déggatuloo cas importé je pense que état dafa war jël ay responsabilités par rapport à xam nga nit ñi dañuy wax feebar bi feebar bi mais dafa am loo xam ne dañ ko fàtte l' économie du pays waaw. l' économie de nos nos nos collectivités locales tey tout est aux arrêts kenn liggéeyatul man sama commune service minimum la ñuy def liste suñu téléphone ak suñu WhatsApp la ñuy la ñuy liggéey di ko yónnente par ay fichier donc benn secrétaire mooy liggéey secrétaire municipal bi boo ñëwee ci état civil bi ñaari nit boo ñëwee service assiette ñetti ñeenti nit à part suñu jeunes yi nga xamante ne ñoo ko jaayante nekk ci mbedd mi mhm. donc mais les économies la dëkk bu économie am ndërmeeloo mu ndërmeelu est-ce que waruñu confiner confinement kan la rey mënul rey kenn dinañ dimbali nit yi ñun en tout cas wakaam bu ñu confiner niñ dimbali nit yi kenn du fa jàmbat lekk comme lekk mooy problème bi. ñu muñ Sénégal boo waxee loolu la ñuy wax. waaw mais ñun. amuloo ma lekk ñu bëgg ma toog sama kër. waaw xam nga amuloo loo lekk njariñ loo fekkee ku naane naam da fay ne. Mm. gis nga dama koy wax waa Wakaam nii laa leen ko feebar bi daal ñun pare nañ ñun waa Wakaam. état moo naa la cap yóbbu. non partout c'est partout au Sénégal ku feebar dootuñu la laal dañ lay yóbbu te duñ bàyyi ñu ñëw di la gis ndax duñ fa ñëw bàyyi ñu la dañ lay yëkkati yóbbu mais buñ la yëkkatee yóbbu. tant que wéruloo doo dellu si nekkuloo confinement. boo wàccee ab liggéey ñu ko yàlla boo fa dee noonu lañ la fay defaree jël quelques personnes ñoo lay yóbbu ñoo lay suul waa balaa loolu ngay wax lekk waa da ngay ut lekk léegi ba dem nga bar sax wala isolé nañ la par la force te lu néew néew wala nga sa nit. Mm. ndax ku am feebar bi lu néew néew di nga wàll benn ñaari nit ndax nit ñi suñu façon dëkkuwaay la ñun wakaam lañ xam nañ ni ñu dëkkee. waaw moo tax bi affaire bi amee dañ ne bi il n'en est pas question que mu dugg fa. di ñëw def geste barrière yi ci village bi ndax bu fa duggee dafay doon beneen beneen problème donc man daal ko balaa ngaa lakkale loolu laa gëm ñu ngi joxe dund yi man je préfère ma lekk sama mbiskit fukki fan ak ñeent lekk-lekk goo xamante ne du googu ma doon lekk mu jeex man ma mën a génnaat nekk ci sama jàmm loolu moo ma gënal alors ci dëkkuwaay yi euh, ba tey euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne euh, am na solo boo jógee wakaam biir jaaree ko ci gendarmerie di dugg biir dëkk bi tali boobu noonu monsieur le maire heure couvre-feu bi buy waaj jot day fees dell ki nit man souvent damay naan xanaa dañuy génn ku nekk di xool sa morom naan ndax dinañu dugg wala heure bii ngi waaj a jot ndax ku nekk dina dem les gens ñi nekk ci tali bi di seetaanante loolu tamit naka la ñu war a mën a def ba loolu jóge fi ndax day favoriser rassemblement ku génn sa koñ taxaw bu yàggee tali bi fees. xam nga manoo si ginnaawu nit bu ne nga jël aw yat li nga man mooy sensibiliser wax nit yi lii mooy indi jàngoro bi xeex ak ñoom man damay xëy di xeex si mbedd bi suba ba ngoon jot man ban bu ma fekk ay nit toog si dama kay nangu. moom nañ la nangu ban bi. bus sax yëg nga si wàcc ni bus yi dañuy taxaw ku arrêté nañ kalandoo yëpp. fiñ ñu amatul benn kalandoo buy daw soo leen bàyyi dañu ñëw jooy jooy jooy nga yërëm leen mais boo leen bàyyee c'est comme c'est une habitude dootuñu ko respecter parce que xaalis bi ñuy gagner rek ñoom moom lañu ñu toppatoo. waaw ku bëggul dugg këram gendarmerie mu ngi def liggéeyam c'est le moment de remercier le commandant de brigade Henri lu ne lay def yónni mais ñooñu gendarme yooyu est-ce que jox nañ leen masque ay masque est-ce que jox nañ leen tout le matériel ñoom ay père de famille mm-hmm. te nag kenn doful doo ñëw tamit nga rey sa bopp ci kii bi noonu ñu ngi def lu ñu man gendarmerie. mais nit yu ñoo dese am conscience oto bi man sax yu ma man man damay génn. damay dajeex oto bi fu ne laay dajeex oto bi seen oto yi et cetera et cetera mais état pour que mu mën a efficace moom mu war a jox leen jumtukaay yi nga xam ne ñoo yu mat ñu def liggéey bi moo tax ñu war a confiner loolu yëpp dootul amati buñ confiner dootul amati il faut le confinement ñu arrêter circulation nit yi mm-hmm. ndax virus bi demul nit yi ñoo ko yóbbu waaw kaaw Chine a ngi foofu la départ bi ñu confiné ñëpp feebar bi jeex na fa bu ñu amatee kaakaa importé la il faut ñu dem foofu nit yi ñoo war a am conscience du foofu rek ñëw naa fekk tàng ne muy jaay guddi gi ñenn ñi xam nga nu ñuy def tëj seen boutique. waaw mais duñ fay lumière bi ñuy jënd xam nañ dañuy ñëw ñu ibbi ñu jaay leen ñu dem mais yooyu yëpp c'est extrêmement grave si extrêmement grave am na gargote yu nekk ci biir ruq yi chaque jour ñu signalé la. da ngay obligé dem fa arrêté ko léeg-léeg man rek maay génn guddi gi du ma am sax lu ma ko dajje léeg-léeg koo xam ne dafa loué si benn kër la da ngay obligé ñëw nekk tëjal yooyu cas conscience la d'accord dëkk bi metti na xam nañ ko ñu ngi def ay effort état def na effort pour dimbali nit yi si dund bi ñun def nay effort pour que kuy ménage ñu jox la nga am loo téye waaye nag nit yi nañ xam aussi ne balaa moo doon xeex boo xam ne xeexu xeexu dund la dafa jëkk a nekk xeexu wérgu yaram li ñuy wax ne c'est une bataille sanitaire avant d'être une bataille alimentaire alors ñi nga xamante ne euh, par exemple seen kër yi nemmeeku nañ fa ay ay cas euh, bañ leen fa génne ba noppi ndax euh, la ca war ci désinfection bi nga xamante ne moom la ñuy digle ñu ngi koy jëf balaa ñuy dellu soit ca kër yi xam nga wax naa léegi ñu ngi gërëm ministère de la santé ak service d'hygiène ak service d'hygiène ak district bi docteur Diop ñoom loolu ñoom seen xam-xam ñoom ci loolu la màcc nee naa la gis nga nit bu xës ba am ñun suñu pare nañ ci. bu ñu la daal yéen ngeen continuer bu ñu ko signalé xam nga lu ñu ci man fexe ba district bi ñëw parce que am ministère de la santé dañ ko def ay pàcc. du ministère mooy ñëw jóge fële de déedéet ministère am na fi représentant. Mhm. du sax suñu commune suñu suñu centre de santé yi de ils sont pas compétents. district bi nga xam ne moom mooy district ouest. te docteur Diop jiite ko mooy ñëw ndax ñoo yor équipement yi. ñoom la ñu tàggat si ñu xam ni ñuy dépister ñoom ñooy ñëw def tout le travail ne duñ nangu sax ñun ñu ñëw parce que ñun amuñu compétence bi te bëgguñu ñu ñu wàllañ mm. ñooy def tout le travail ñun daal bu amee ay résistance si la ñuy doog muy ñun muy gendre mais tant que tout se passe bien noonu lañ leen di jël yóbbu leen mais terewul ñun Wakaam dañuy defar ay sal de confinement ay salle salle d'isolement yoo xamante ne xaaruñu ci état bi parce que léeg-léeg nit daw ñëw ci comme bu nit ñëwee léegi ci centre de santé jàmbat lu mel noonu dooto dooto nangu mu dem këram doo nangu mu laal personnel bi léegi moom amul fu mu dem nan ngay def te du da ngay oote rek ñu ñëw du si saa si saa si léeg-léeg nga oote tey suba la ñuy ñëw mm-hmm. parce que tamit noonu la système bi tëdd moo tax ñu war a moytu ndax amuñu moyen yooyu yëpp yoo xam ne dangay ngay oote léegi rek ñu ñëw léegi do am nañ ci benn cas kooku ku responsable la nee na moom wax na sax contact am mais bi mu sentiree ay séquelles xam naa si xel mi la ne woon ndax xam na ne kii nekk na ak moom te kooku am na feebar bi bi mu ñëw jëlul oto dafa dox. waaw ñëw bi mu ñëwee nanguwul laal kenn mais jël na xaalis bi mu joxe ko donc bi ñu xoolee kenn nangu mu mu mu présenté les séquelles dañ ko jël obligé si saa si si hôpital bi ñu am fu ñu isole mhm. dugal ko fa en attendant boobu fekk ñun fi ñu isolé pareegul. ñu teg ko fa ba ñu ñëw ba def test yi ba testé gis ne dafa négatif muy doog a jóg dem këram mais bu fekkonte ne si ñu fële pare na bii mu ñëwee rek dañ koy jël yóbbu ko dugal ko si ambulance bi wax ko mu dugg bu duggee mu wàcc bu wàccee ñu dugal ko si salle d'urgence bi ñu amee cas contact yi cas yi aussi. am na si contact yoo xam ne avant que ñële di ñëw dañ leen daw dugal leen foofu ba ñu ñëw foofu lañ leen fekk jël leen yóbbu leen donc yooyu yooyu def nañ ko foofu donc pour que jàngoro bi ñu def le maximum pour ko du law. alors euh, tey euh, li nga xamante ne gis nañ ko ci ci ay mesures nga koy euh, jëfee jàpp nga ni am na loo xamante ne tey ci li nga gisagum war nañ ko renforcer pour fexe au moins mbir yi gën a gaaw gannaaw li nga xam ne teg nañ ko déjà comme dispositif fan nga jàpp ni war nañu renforcer pour mu gën a gaaw. mooy numéro yi ñu joxe ñëpp amuñu sama numéro. ñëpp amuñu joxe sa numéro sax na. kon tey ñu def la ñuy def centre d'appel ba. waaw loolu moo tax ñëpp amuñu de numéro médecin chef de district. mais wax naa la léegi ne la cas boobu noonu bi ñu ko amee si ëllëg sa la ñuy doog a ñëw pour man ko euh, defal test yi te bu fekkee ko ko am loo gën a yeex rek walla bu gën a bëri. Hmm. donc war nañu gaaw ndax ñëpp dañ may wax dañuy ñu am ñoo wax dañuy wax ñetti fan oote nañ ko mais kenn jëlu leen. dañuy fexe ba am sama numéro bu ko defee ma oo docteur Diop docteur Diop doog a diligenté ñu daw ñëw loolu foofu moom vraiment buñ ci gënee gaaw mu gën a baax il faut que bu ñu ootee rek moo am équipe yu pare autrement dit mooy nañu former suñu suñu suñu suñu centre de santé yi mm-hmm. jox leen matériel nga xamante ne zone bu nekk au léegi district bi yor yëpp district bi encadré lépp mais zone bu nekk nga am ñoo xamante ay éléments yoo xam ne prêt à intervenir d'accord merci beaucoup euh, Samba Bathily euh, Diallo di maire bu euh, Wakam ñu dem seetaan publicité jàll ci xibaar yi après 20 ñu dalal suñu ñaareelu gan.